salaamaaleykum waa àdduna salaamaaleykum waa senegal maa ngi siyaar sama réew maa ngi nuyu waa Sénégal yépp di ñaan senegal yàlla na fi jàmm yàgg di ñaanal kilifa diini yépp ak kilifa aada yi yàlla jàppale leen bàyyi leen fi ba ci kanam ñuy ñaan yàlla di nangu ah soo nekkee ci réew moo xam ni tey jomm nañu suturaal nit nga nekk ci réew moo xam ni fësal lu bon moo gën a gaaw ci ñoom fësal lu baax da ngay moytu muy ndaw bi muy jeunesse bi muy mag bi muy ñépp nit boo nekkee quelqu'un wala sax doonoo quelqu'un kenn xamula da ngay moytu lu bari te da ngay bañ sa der di takk ci yenn yi manam kenn munu Djum, djum day am jum te mom yalla rek yor destin te yalla rek yor djum mais am yu bari yo xamni ni boo lu wul du am te nit ki bo nekké ni deug da ngay moytu di djum ci djum te yo xamni su la nit rombé dina la ko wala ëllëg say njabot suñu tapé YouTube wala fuñu ñu tapé a tàppe ci àdduna dañ la koy xolé te Sénégal moy réew mo xamni ni balé dara mën nga di bégal tay di begel bégal chaque jour di leen di contane lo di def leen neex chaque jour ñu lay que di la bégee di la retaan waaye bis boo juumee ñu wan la ni day mel ni xamuñu la woon noonu la Sénégal di tëddee jamono ji te loolu lu fa war a jóg la waaye tamit damay ñaaxaat jeunesse bi di ñaaxaat population bi ñu moytu lu bari ci lu bon di muytu yoo xam ne tey ëllëg mën na leen a yàqal ndax àdduna bii ñu naan jeex na ba pare jeexagul ndax saa yoo xëyee yaa ngi gis jour lënd ba dimanche yaa ngi koy dund kon da ngay moytu lu bari ba kenn du la ci yenn yi moytu sàmm suturaay bopp ëllëg da ngay am jaboot say famille duñu xam nan lañ leen di xoolee yow mii sa bopp dootoo mën a génn normal te dootoo mën a firi te xale bu ndaw rek nga boo amee 25 ans wala nga am 23 ans ci ngay am ba 30 ans xale nga ba 40 ans weesoo goo àdduna kon lu bari da nga ko war a moytu parce que saa yoo xëyee rek da ngay waaru di jaaxle ci nan ngay xoolee population bi nan ngay xoolee sénégalais yi man nag lii rek laa mën ma gis dara wax ci sama xalaat ci lu rafet yàlla nañu yàlla sàmm ñun ñëpp yàlla suturaal ñu ndax yàlla ku mu suturaal ku mu bëgg rek a fi am waaye kenn ci àdduna mënul wax ne lii du ma dal waaye jeunesse bi laay gën a ñaaxaat ñu gën a moytu gën a jàppalewaat seen bopp gën a xoolaat seen bopp gën a fonkaat seen bopp gën a xam ni yàlla mooy dogal waaye tamit loo sabab luwul du la ca fekk maa ngi leen di ñaanal yàlla sàmm leen te ñu moytu lu baree baree baree baree baree bare ndax phénomène bii may gis lomotif yii may gis jaaduwul ñaaw na baaxul ci doomu aadama baaxul ci santé baaxul ci jeunesse nañu moytuwaat bu baax a baax te jàppale suñu bopp loolu mooy réew mi Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg.